Yo, mi de télé bii de Kifna TV abonnez da daal partager vidéo koy Kifna TV moom mi que ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu Kifna TV Sénégal. Salam ñu ngi dellu si waat euh, ci suñu émission bi ne roy lu waaw roy lu baax nag wax dëgg yàlla lépp lu baax rek dañ koy waxtaane waaw bu lu si nit dañ koy waxtaane bu tamit buñ naan roy lu baax lépp lu baax rek la waaw tey boo xoolee Sénégal ni muy doxee gis nga tey mën naa la ne même sax ci gouvernement yi ci mm, ak ak képp koo xam ne yilif na rek wala ñi nga xam ne ni parfois ñu jël xaalis bi am nga def ko noo xam ne ni saawaay nit ñi duñ ci jot te wax dëgg yàlla loolu yëpp lan day jur day jur pauvreté bu bari rek tout le temps alalu ñëpp moom bu ko ñaar di si rek ñeneen di juñ ci jot pauvreté bu bari lay jur rek même gis nga ñi nga xam ne ni ay jamono boo seetee jëloon nañu xaalisu réew mi wala ñu jël yenn xaalis euh, te tey jom ba tey jii mënuñu génn xaalis yooyu tey leen rek lañ leen waroon a proposé dañ leen waroon wax kenn ku si nekk xaalis bi nga jël euh, ñu xool dëkk bi nga nekk bu dee dëkk bi nga nekk dafa pauvre ñu fexe ba tijji loolu fa benn société ne xaalis bi nga jël moom ngay tijjee société bi jël. ñi nekk foofu pour semence boobu wàññeeku xam nga loolu bu ñu ko defoon si ñi ñi jël alal alal lu kon di nga gis ne société yi dina fi bari te alal yooyu day nekkaat alal yoo xam ne dafay jariñaat askan bi parce que dañ lay wax na la ne lii dangay ngay fee société ci force boo ko jënd tijjiwul ñu nangu ko waaw bu ko defee nga nga tijji sa dëkk bi ñu tànnal la benn dëkk wala mu nekk dëkk bi nga nekk te mu pauvre nga def loolu yooyu buñ ko def loolu da doon tax ne kenn ku si nekk rek boo di nga gis ne li nga jëlaat day duggaat ci réew mi loolu dafa am solo wala ñu jox la benn affaire ne la séddaleel doomu aadama yow nga sédd sa waa kër do sédd askan bi loolu baaxul xam nga te askan bi gannaaw yàlla ñoom ngay soxla waaw boo bëggee ñu woteel la il faut même jamono bi nga leen di soxla nga di neexal boo bu sa soxlaa fajo si ñoom da nga war continuer di anda ak ñoom parce que da nga leen di soxlawaat mais boo xoolee ñun dëkk bi ni ñuy def moom mooy buñ la soxlaa dañ lay neexal yow boo leen soxlaa fekk ñoom seen affaire baax na ñu ne la noono booy man da nga war jaar ci sama secrétaire man yombeetuma noonu parce man borom daraja la te yow bi nga ko soxlaa da ngaa teg sa daraja fële ñëw si moom diisoog moom ci soxla bi wax ko ay argument yu tax mu gëm la loolu nag moom moo war a tax nga sàmm xam nga ak nit ñi di xool tamit nga xool boo xoolee dëkk bi day gis ne man dama gis ne même maire yi yenn saa yi nga gis ci dem dem ci benn maire maire boo maire maire boo benn maire boo boo xam ne nii dëkkam du am boulangerie balaa ñoo lekk mburu foog mburu mi jóge beneen dëkk dugg dugg dugg dugg dugg dugg ci dëkk bi ñu door a ndékki wala xam nga yu ak yooyu wala rax lu ñu lekkee seen yenn lekk yi ànd ak mburu loolu yëpp tey mënoon na nekk solution boo xam ne parce que maire yi man dama bu ñu la falee ci dëkk da ngay xool dëkk bi li mu manqué li mu manqué nga fexe ba def ko fa boo ko fa defee nag mu nekk luy liggéeyal maire bi mën nga fa def benn boulangerie boo xam ne boulangerie bii da nga ci jël ay doomu aadama boo ci jëlee ay doomu aadama teewul dañuy liggéeyal maire bi waaw parce que da ngay jël ay doomu aadama mais dañuy day leer na ne boulangerie bi ñëpp xam ne boulangerie bii fi am ci dëkk bi te dëkk bi amul boulangerie bi maire bi moom ko fi indi. waaw léegi lu mu liggéey mairie bi mooy gañewaat loolu te teewul mairie bi créer na fa ay employés mais tey bu dee mairie yow lenn rek ngay jël mooy lu ci marché bi euh, lu ci mbedd mi ay faxas euh, bale yeeg marché beeg xam nga di contrôler magasin yi di contrôler kër yi nga xam dañ leen di tabax te amuñu kër te yow boole woo si li nga xam ne tey yaa ngi xool sa dëkk ne lii manqué na fa nga def ko fa loolu ba léegi day am sa liggéey dafay des parce que loolu boo seetee li maire yi di liggéeyee ba léegi noonu la ñuy ne di liggéey te war na gën a mën a am changement war nga war na sax war na sax nga mën a xool sa dëkk ne amul euh, tey bu ñuy bu ay magasin ay magasin amu fa bu mag nga xool fexe ba créer fa benn magasin bu mag xam nga teg ko fa même yow mën nga xool loo xam ne ni ay kiiwu ciment la maanaam euh, magasin yoo xam ne day jaay ciment nga fexe ba yow mairie bi nga collaborer ak euh, kii jaay ciment euh, nga fexe ba collaborer ak moom euh, mais samp ko sa dëkk teg fa nit di jaay loo jaayaat mu dugg ci mairie bi mais teewul yow créer nga emploi xam nga yooyu yëpp da ciy mën a nekk ak bitig yu mag yeeg yooyu tey nit ki buy jóge si sa dëkk di demaat beneen dëkk pour am li mu bëgg yow boo xoolee ne sa dëkk lii la manqué yow mairie bi nga mën ko def jar na nga jël def ben mangandam magasin boo xam ne lépp lu nit ki soxla ci dëkk bi daf fay am nga xam ne doo soxlaati mu génn mais nga créé foofu ay emploi yooyu yëpp dafay baax yenn ruq yi tamit boo seetee parfois da ngay gis ruq-ruqaan yoo xam ne oto mënu fa dem yow nga maire jaral nga ut ay jakarta yu bari mais teg leen foofu ñuy def transport bi am muy duggaat ci maire bi mais tawit yow di ki xam nga yooyu eh, fekk yaa ngi yaa ngi yaa ngi wàññi chômage bi foofu yooyu yëpp dafay baax ba ci station tey station war nga mën a collaborer ak ñoo xam ne sa dëkk tey bu dee wax dëgg yàlla bari nay oto te amul station war ngaa mën a négocier ba def sa dëkk eh, station ba pare créer waat fa emploi yooyu yëpp maanaam man dama ne kenn kenn ku nekk ko fu la jiital yow waroo yem ne Euh, nii la dëkk bi daan doxee bu njëkk ba rek man ma yem si loolu da nga war a xool lépp lu nga xam ne mooy doxal dëkk bi nga fexe ba wut ci ay partenaire wala nga fexe ba wut ci li nga xam ne ne tey mën na doxal euh, mën na mën na jóge ci say budget te mën a doxal dëkk bi nga doxalee ko xam nga boo xoolee même ci marché yi yenn saa yi nga dem ci ay marché yoo xam ne pourtant marché yi chaque jour ñu joxe ay juuti te da gis ne duusu marché bi du set wala bale bi ci war du fa am mais nga créer foofu emploi nga créer foofu tamit loo xam ne day amaat ku nekk ci douche bi di defar douche bi nga koy neexal ba pare teewul ku dugg foofu fay fay bu dee tuur ndox la mu fay bu dee kii comme euh, ni ni ko ñenn ji defee bu boobaa da ngay gis ne douche bi day am hygiène ba pare foofu marché bi tamit day set ñi war a bale di bale marché bi chaque jour nga xam ne bu bu nit ñi wàccee fekk ñooñu ñëw nañu bale bu ko defee foofu day set te yow nga emploi loolu yëpp da ciy baax xam nga te tamit euh, même léeg-léeg tamit mën nga xool tamit ñi ngay jël ni tamit ñuy yem ci marché bi di créer ay di xool ñu di borom taabal yeeg di nangu seeni taabal ak di def lu nekk parfois loolu rek du liggéey léeg-léeg mën nga bàyyi ñooñu tamit ne leen léeg dee leen ma wëral ci ci ci dëkk bi pour lay wëral si dëkk bi nga ne leen lenn rek laa leen di lenn rek laa leen di laaj mooy lépp euh, ngeen wër si dëkk bi yëpp ngeen xam dëkk bi yëpp ngeen fexe ba mentionnellement lépp lu nga xam ne yéen a ngi koy remarqué ci dëkk bi nit ñi di ko kaas te man seegul si man man ma koy xam wala ruq-ruqaan boo xam ne am na ay euh, toj-toj wala tali bu yàqu wala am ay affaires yu yàqu wala am ay euh, yu ñu war a defar te defaruñu ko yooyu yëpp man ma koy fexe di xam loolu dafay day tax day day tax dara du la ëmp si lin la lin la géeraloo waaw te yooyu yooyu yooyu da ci da ciy baax même bu dee tey boo xoolee président de la république tey boo demee dem ba yow boo jëlee dara alal bu bari jox nit naka pour askan bi mais loolu du yegg si si ñoom parce que ka nga koy jox peut si boppam la koy yemale yow dangay ngay defe ne ñëpp jot nañ te kenn du jot mais da nga président leen la war a def parfois. da ngay génn yenn heure yoo xam ne kenn xalaatewu la fa xam nga te ni nga koy defee danga nga koy defee sens boo xam ne ne tey yow boo santaane woon fenn liggéey wala nga santaane fa ne fii nañ fa joxe lii dangay ngay jékki-jékki ne benn jour boo xam ne kenn du xam ne di nga dem nga dem laaj ndax man lii ma waxoon na nañ ko joxe fii ndax joxe nañ ko noonu. bu ñu ko joxee noonu nga xam ne ah yow li nga santaane woon def nañ ko buñ ko joxeewul noonu mais nga oo ki ki nga xam ne moom nga ko santoon nga ne ko lu tax lii ak lii defee woo ko nii loolu loolu da doom day day day day kii day day day tax yow loo joxee nit ki dina boo joxee nit neka defal ma lii dina tax moom mu tiit tiit boo xam ne nii parce que day xam ne yow contrôle bi ngay def dangay bett di contrôler day tax moom lépp loo ko sant dina ko def te yooyu yëpp président yi dañ ko war di mébét di ko def beneen bi moom mooy boo xoolee même kër yi tey li ngay lebal nit ñi ñu koy lekk tey boo lebalee nit moom nga jékki-jékki li nga ko lebal mu lekk ko fan nga koy fayeeku doo ko fayeeku lenn nga mën a def mooy tey président de la république yi dafa ñu war a def lenn kër gu nekk ñu fexe ba jël fa benn nit mu liggéey ñu utal ko liggéey buñ ko defoon ci kër gu nekk utal ko utal leen liggéey wàññi ceeb wàññi diwlin semence bi day wàññeeku ci ñëpp waaw parfois tamit euh, léeg-léeg ñu defal nit ñi sax ay consultation domicile fekk ay mag lañ te loolu ni nga koy defee yomb na waaw boo demee ci poste yi boo demee ci poste yi xam nga sax sax sax sax weer ngeen fay ngeen ngeen ngeen ngeen jox euh, retraité yi ay xaalis mais retraité yooyu mën nañ leen defal parfois. Euh, consultation gratuite loolu ma war ak boo xam ne demi domicile sax lay doon consultation domicile loolu nan lay doonee mooy da ngeen di yebal nit yoo xam ne dañuy dem ci poste bu nekk boo nit ñi di retraité retraité di di fayeeku ngeen fay ba jël seeni i numéro boo leen jëlee seen i numéro mais kenn ku nekk ngeen contacté ko laaj ko lu koy metti ay situation am nan la mu wax xam nga bu waxee ba pare day mën na mën nga mën na jékki-jékki rek ngeen ne tey ñoo ñii la dem faj suba ngeen ne consultation bi ñee lay faj bu ko defee loolu noonu day nekk liggéey bu am solo boo xam ne ni euh, nit ñi dinañ ci gis seen bopp euh, ba pare yow di nga ci am nit ñi parce que nit ñi lu baax la ñu bëgg ah, boo leen jàppalee rek dañ lay jàppale xam nga mais tey bu dee yow da ngay da ngay da ngay da ngay fi nga rek pour nga contrôler doomu aadama yi da ngay yebal ku lay contrôler ak même boo nee ne ku yàlla jiital rek ku yàlla jiital ku mu mën a doon lépp looy looy yilif war nga jékki-jékki bett nit ñi dem xool ndax li nga yilif ñu ngi koy def loo fa joxe ndax ñu ngi koy joxee ni nga ko bëggee parfois ñi ngay jox duñ ko joxee noonu waaw loolu coono la te boo xoolee xoolal te maire yi tey ñu ñu ñu ñu ñu ñu maire yi tey tey ñu ngi xëccoo nekk maire mais lan lañ waroon def maire bu si nekk da nga waroon a teg say programme nga teg say dëkk wala nga teg say quartier yi nga xam ne ni tey moom nga moom nga nar a yilif ci boo doonee maire léegi quartier bu si nekk nga dem xool ay aajoom lan la nga teg ko si table bi jar na nga woo télévision ñu ne maire sàngam tey moom mooy def inventaire ci ay quartier comme ni ko député yi di defee fin d'année ak ministre yi mais maire yi dañ ko war a def kenn ku si nekk nga ñëw sa quartier wax wala yow ñi nga xam ne yebal nga leen ba ñu xam ne yii quartier yii nii lii expliqué nañ la quartier bu nekk ne la lii ak lii ak lii moo fa am léegi bu la neexee da ngay loterie nga loterie quartier yëpp boo loterie quartier yëpp quartier bu njëkk a génn mais publiquement lay doon nga xam ne day flagrant nga loterie quartier yi quartier bu njëkk a génn nga wan ñëpp ne quartier bi moo njëkk a génn lii mooy problème mu quartier boobu lii dañ lii lañuy lii la ñuy defar teg na le bu quartier bii tamit lii moom mooy problème am mooy jafe-jafam bu ñu jógee ci quartier bi bii lii la ñuy defaree fii si deuxième quartier boobu troisième quartier nga ne nga demaat bu génnaatee nga ne ah quartier sàngam moom la ñu moom la ñu loterie waat moo génn nga ne lii moo fay jafe-jafe yi kon foofu loolu bu ñu paree si ñaari quartier yi quartier boobu lañ jëm noonu ngay toppee quartier yi ba quartier yëpp mat bu ko defee nan nga koy defee quartier boo ci defar na nekk priorité ñi fa ne maanaam ku si nekk di nga bëgg sa quartier day baax quartier yi boo ñëwee ci quartier yi di ko defar nga xool les jeunes yi nga xam ne liggéeyuñu nga ne leen ah seen quartier bi la ñuy defar waaye dañ fi soxla tant de personnes bu ko defee temps de personnes yooyu nga jël leen ñu liggéey seen quartier léegi nag yow loterie yooyu yëpp nga def xam nga kenn ku si nekk dina xam ne yow quartier sàngam bu buñ ci paree ñun suñu quartier lañ jëm quartier sàmbam sàngam buñ ci paree suñu quartier lañ jëm loolu bu boobaa liggéey bi day nekk ordre même yow boo demee ba nekk ba ba def fii ba defar quartier nga defar ay cinq quartier wala ay quatre quartier gis nga foofu nga yem noonu beneen maire sax bu ñëwaatee moom fi nga yem lay continuer continuer yeneen quartier yi mais boo xoolee liggéey bi ni muy demee yow da ngay liggéey fii liggéey fii liggéey fii liggéey bi day jaxasoo waaw ku nekk da nga koy bëgg a cofal nii loolu du defar boo tegoon nit ñi affaire yi ci ordre boo defaree fii ba mu pare nga defaraat fii ba mu pare lu dul nag fu jàmp comme lu mel ni ay nawet nga gis fu taat ndox moo xam ne kenn mënu koo xamul lu muy def nga dem nga dem xam ñëpp xam ne nga def publiquement ne lii nag priorité la waaw priorité la dañu war a defar fii fii nii lañ toppalante woon quartier yi mais lii lu jàmp la priorité la moo tax ñuy dem defar lii bu boobaa affaire bi day flagrant day maanaam day day day day day nekk lu lu lu lu palpable lu leer. xam nga te tamit euh, président bi di def leen bu paree moom tam président bi chaque fin d'année lan la lan la war a def dafa war a def maanaam mairie bu mu fal. wala mairie bu falu dafa war a xool ndax yow budget bi ñu la jox ndax la nga foo xoon da nga ko def ndax def nga ko wala bu xoolee ndax yow def nga ko ni léegi boo laajte woon xaalis bu mu mën a doon sa budget pare ah ñu jox la sa budget nga ne lii ak lii ak lii naa ka si def mi maanaam président bi dafa war a contrôler avant décembre yi nga xam ne ni avant muy mu ñu lay wootalaat budget war nañ la contrôler xool ndax yow mii la nga xam ne ne xaalis bañ la joxoon ne la da nga ko war a liggéey lii ak lii ak lii est-ce que liggéey nga ko bu ñu xoolee ne liggéeyoo ko yow sa budget dañ ko war a wàññi parce que liggéeyoo loolu ki nga xam ne nii nag moom gis nañ ne moom budget bu mu laaj la mu laaj noonu la koy liggéeyee kooku dafay jar di yokkal budget parce que kooku liggéeykat lay doon mais kii nga xam ne ni tey loo ko jox mu def lii bàyyi lii te fekk na yow déclaré woon na la loolu yëpp def kooku dañu war a wàññi biseem lool bu ñu ko doon def day dem te parce que mairie bu si nekk yow war nga mën a ñëw sa sa sa sa gis mairie yu bari yoo xam ne nii ñoom fa ñu nekk sax du ñu kaasal seen dëkk ne lii problème yi ak problème problème yi te yooyu war na am war nañu kaas problème yi yëpp yi nga xam ne moo nekk seen dëkk lu ñu mën a faj nag ñu faj li nga xam ne nii nag mënuñu koo faj mu nekk nag lu ñuy kaas loolu dafay baax. Yen sa yenn te dañoo war tamit même église bi dañ fa war a dem di leen laaj seen xalaat mui bu muy maire muy président président bu yilif réew war nga mën dem ci ci église bi nga église bi man maa ngi leen di laaj yéen lan mooy seen xalaat ci Sénégal gi ban gis-gis ngeen ci gis ñoom ñu wax la seeni gis-gis xam nga bu ko defee euh, mais da ngay dajale gis-gisu nit ñi gis-gisu nit ñooñu ñëpp ngay dajale mais day tax nga mën doxal dëkk bi. mairie bi tamit noonu la boo laajee julliti seen gis-gis ci li ma yore ñu expliquer na la ah ñun de nii ak nii moo ñu si neex lii moo ñu si neexul yow da ngay xam gis-gisu julliti nga demaat ci catholique yi nga ne leen seen gis-gis ak chrétien yëpp laaj leen seen gis-gis ci lii ma yore nii wala ni ñu yoree dëkk bi nan nan ngeen ci gis lan ngeen gis ne moom moo fi baaxul ak lan moo lan lañ def lan lañ war a def ñoom tam dañ lay wax ba pare. ngay dugg ci école yi tamit école yi benn école bu si nekk képp ku fa génnee ci formation yow war ngaa xam nit kooku xam numéro téléphone am nga xam ne nii sa dëkk lépp lu fa ñëw ci ci xeetu liggéey yow da ngay xam ne école sàngam am na ku yor formation sàngam kon moom la ñu war a contacter mu jël liggéey bi loolu dafa war am bu ko defee école yëpp bu ñuy jàng dañuy xam ne non lii ñuy jàng nii mën nañu amal rendement parce que fii parfois ñu jël fi nit koo xam ne nii am na diplôme bu mu fi génnee te am na liggéey waaw kon ñun da ngay gis ne kon élève dañuy fonk seen njàng xam nga yooyu yëpp daf ci daf ci daf ci daf ci nekk te parfois tamit lépp luy génn tey boo bu nekkee bu nekkee bu nekkee ay liggéey yoo xam ne dañ ko indi si sa dëkk mais da nga koy séddale yi da nga koy jox jullit yi nga jox catholique yi ak chrétien yi kenn ku si nekk mu tànn wala ku ne rek euh, ñi nga yilif ñëpp daal ñu tànn ñii bu ñu tànnee ñii tànn nga xam ne yow da ngay équilibré jullit dañ ci gis seen bopp ñi dul jullit dañ ciy gis seen bopp bu ko defee parce que ñoo bokk dëkk bi noonu la war a noonu noonu noonu la war a demee bu ko defee mais avancement dafay dafay dafay kii dafay dafay dafay dafay am moo tax moo tax euh, dëkk bi daal lu ñu mën daal moom mooy ñu am taxawaay boobu nañu nañu nañu jéem a jàppalante jéem a xool lépp luy baaxal dëkk bi waaye ñëw wax nit ñi loo xam ne nii comme lu njëkk la ni mu daan demee rek nax nax nit ki pour xam nga amatul léegi tey boo bëggee nax nit ki parce que day gis réalité léegi nag ki ki nga xam dafa xam dëgg nag boo ko bëggee teggi si dëgg bopp loolu dootul mën a ne moo lu nit ki di wax na nga gur jëf bi waaw loo wax nit ñi ne lii dinaa ko def na nga fexe ba lu ne boo demee nga def ko na nga fexe tamit ba ni nga doomu yi fal nga ba ba bul jafel sa doomu yi ba nga xam yow day am jafe-jafe loolu xam nga yenn saay euh, tabaski war nga contrôler nit ñu bari ñoo xam ne nii dañoo pauvre nga dem ci ñoom xool pauvre yooyu ñan ak ñan la nga xam leen bu tabaski jotee kenn ku su nekk nga yéene ko may xar korité tamit noonu ngay def ñi nga xam ne carrément ñëw pauvre mais yenn saa nga dimbali koo xam ne nii saa waay pauvre loolu est-ce que ndimbal la du ndimbal loolu affaire ami la waaw moo tax nit ñi maanaam dimbal ku koy def danga koy def ko danga koy da koy jox ñi nga xam dañu ñàkk te soxla ko waaw bu ko defee mais loolu loolu loolu loolu loolu day day day day day day dimbali ñëpp waaw xam nga mais daal moo tax daal affaire yi daal bari na bari na waaw osan yi yu bari yi ma waxoon naa ko fi osan yi yenn saa yi nga teg fa ay pañe yoo xam ne parfois da ngay mën a da nga fay teg pañe néew di doole mais ku néew doole tey boo tegee benn pañe néew di dole si benn Auchan wala bitig magasin yu mag yi ne leen pañe bi pañe néew dole bépp borom alal bu ñëw bu jëndee nga ne ko di bi ab këyit a ngi nii ki nga xool këyit bi da nga ci def xeetu lépp luy jaay ci Auchan bi bu ko defee mën na jëndal boppam ba pare jënd li nga xam ne di dole def ko ci di yow fekk bu fekkee ne yow recensé woon nga sa dëkk ñi fa ñàkk après bu pañe bi feesee da ngay dem rek nga séddale war leen nga xam ne day wàññi semence wala mu wàññi xiif ci nit ñi xam nga yooyu yëpp baax na ñi ngay teg foofu tamit ñu toog fa loolu semence bu wàññeeku parce que lépp nii tey am na nu muy demee ba dox noo xam ne ni day woyofal lu bari même dëkk bi gardien yi da ngay dem parfois nga gis ay nit ñu dajaloo foo ay dajaloo ay métier ay mason ay ñiy takk feer yi xam nga ñi nga xam ne dañuy menuisier menuisier yi la coffreur yi yooyu yëpp tey waroon nañu organiser d'une séance boo xam ne dañuy def benn fenn foo xam ne nii ñoom ñëpp fa la ñuy dajaloo képp ku nga xam ne soxla nga maçon rek ñoo ñu ngay waxal bu ko defee ñoom ñu tànnal la fi ñi nga xam ne nii mën nañu la liggéeyal ñuy jox la ñooñu bu ko defee ñooñu dañuy am fay fay fay bu baax mais da ngay gis fu ñuy dajaloo ba ay midi jëm kaw ku si nekk ñenn ñi ngay jël ñenn ñi dem ñibbi ñibbi wat te yooyu yëpp mënoon na mënoon mënoon na mënoon na changé waaw parce que taxawaalu bi bari na xam nga di xaar liggéey te doo mën a am liggéey dafa bari moo tax solution bi daal moom mooy président bi na fexe dem kër gu nekk mu jël fa benn nit waaw na fa jël benn nit bu fa jëlee benn nit mais day wàññi semence waaw loolu loolu nag moom moom moo gën tey bu dee eh, kër gu ne mën nga fa jël ñaari nit sax mais dem loolu day wàññi semence wàññil ceeb wàññil diwlin loolu yëpp day yombal dëkk bi waaw te lépp loo def loo defal loo defal Sénégal nga demaat contrôler ndax ni nga ni nga ni nga ni nga waxee ñu defee ko ndax defe nañ ko noonu loolu def ci am solo waaw si sinon rek li muy jur moom mooy ñii dañuy gis ñii duñu gis waaw boo xoolee deer bi ñan la jariñ bariwul waaw te ñu bari tey waxoon na leen dem leen déposer dem leen déposer ñu déposer lan lañ ci am dara tey ba léegi ci jamono bii nii. la ñu déposé woon jotuñu ko ñi ñuy gis ñi koy jot rek mooy militants yi bokk ak ñoom loolu baaxul yooyu yëpp nag lan lay jur day jur dëkk bu jaxasoo rek parce que dëkk moom boo ko bëggee defar doo ko defar si si ne da ngay fixé fenn rek pour mën a dimbali ay nit parce que fa ngay fixé bis bu tëddeewul jaaxaanaay du dem waaw moo tax li si gën a ëpp solo daal mooy président bi na dem kër gu nekk jël fa benn nit wala ñaari nit ñu liggéey loolu dafay yombal nit dafay yombal ñàkk waaw dafay yombal ñàkk waaw dafa yombal ñàkk parce que ñàkk dafa met yenn saa yi nga gis fii ko xam day solo ba rafet te du lekk këram du fa lekk yenn saa nga gis fii ñoo xam ni nii euh, sakk rek la ñuy dundee te duñu lekk te am na ñoo xam ne seen kër duñu taal añ ñii mën naa la seen jafe na jafe boo ni ne nii saawaay euh, benn repas lañ préféré añ wala reer waaw moo tax nag yàqu-yàqu bi bari parce que nit moom bu demee dem ba mu leer na ko ne li mu waroon mënal boppam mënalu tukk boppam beneen solution lay jël waaw moo tax yooyu yëpp daal nit ñi nañu bàyyi bàyyiwaat xel si loolu ñu bàyyiwaat xel si loolu delloo si waat seen xel te xam ne daal fii Sénégal gi ñun ñun ñoo ko bokk waaw li war daal ñu ibbi suñu xel lépp lu nga xam ne mooy yaatal wàllu développement ñu def ko li fiy jëlee semence tamit. ñu fexe ba góorgóorlu si loolu mu dañ waaw loolu tey euh, moom lañ leen indiloon mu nekk nag suñuy gis-gis ci réew bi parce que comme ay voté yaa ngi ñëw loolu moo tax euh, tey ñu waxtaanee loolu waaw ñu ngi wax nit ñi tamit euh, yal na yàlla defal ñëpp jàmm yokk sutura xam nga di wax ne képp ku nga xam ni tey yaa dem fenn nii nga nga ki ngay jàkkaar loolu yaa ngi koy ragal wala nga ragal mu wax la dara dangay def nii bismillahi rahmaani rahim nafaasaati nafaasaati nafaasaati ateykum allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim nga ëf nii def nii sa kanam boo demee ki ngay jàkkaar lool du indil benn jafe-jafe boo defee ñetti fatiha ñetti salaatu alal nabi yi ñuy wax allahuma salli ala sayyidina muhammad xayra wara rasul ñetti yoon nga sa loxo def ni tamit képp koo jàkkaar lool moo xam réunion la moo xam lu mu mën a doon tamit yàlla da lay dimbale waaw euh, parfois ni euh, nga bëgg nga amel nit bor te bu la yaa ngi bëgg a romb foofu te boo rombee foofu mu indi la jafe-jafe xam nga fekk te am nga kersa boobu da ngay def wal yetta la taf wal yatalataf wal yatalataf wal taf loolu rek ngay wax ba romb ko xam nga bu ko defee nga mën a am sauvetage ci moom waaw même tamit mën nga def tamit chaque suba ah nga def zo xuwati cent zo xurmati cent fois zo makkaanati cent fois zo isifat cent fois zo fadil cent fois loolu rek boo koy wéddu mën na la yombaleel dépense chaque suba rek nga defee ko noonu bu ko defee ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla defal ñëpp jàmm yal na yàlla defal ñëpp sutura asalaamaaleykum wa rahmatullah jaaxleetul kenn toogatul di jàmmat benn métit ci yaramam kenn toogatul naan fii mooy métti bësal ma ak santana sa santé day baax ñu jël ay gàncax yu ñu jëlee fii ci suñu réew moo xam li fi ñoom maam bàyyi woon mbaa ci àll bi boole ko ngir Sénégal yépp man cee jot ah defe naa ne xàmmee ngeen saabu bii lii mooy saabu santana da nga bëgg ubbeeku moo xam si sa liggéey mbaa lépp luy yëngu gaaw ci liggéey sa yaram foo tollu day métti da nga sentir yokkute ci sa bopp ak ci sa wér gi yaram yow mi nga xam ne cat dala topp sono la lool saabu sant naa baax na ci lool day mel ni baaraas ci sa kanam làmmiñ bët bu aay lépp moo ci aay yow mi nga xam ne ndoxum ci dala sonal lool kii moo ci gaaw saafara baa ngi waxuma ko ñi ko xam te ràññeeku te yàgg koo jëfandikoo ñoo ko wax moo tax ma ñëw ngir baaxee la yow mi nga xam ne sa yaram day xasan foo tollu dangay wokkatu bay bëgg a dee ni kii xoos soo jëlee saabu bi di cant dong la Abba Jadda santina naa frotte bi baax ci yaram mag xale fépp fii métti mën nga ko fa diw foo ko diw waxuma la raay mu sedd waaye teg ko fa gis xam nga am lakk-lakk mbaa sa doom wala góom ak fu mu ko am mo xam mi mak wala xale boo jele jëlee mu daal di koy faj ci sens yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg doxantu ba fi ñu nekk ñoo ngi nekk Kër Massar termisu 54 bi ci 15 bi mu ngi pharmacie Pascal yow mi nga xam ne mag dala dugg nga bëgg fa dem te dem bi jàppandiwul yow mi nekk si sa liggéey ak ci di nga fa dem dem te dem bi jàppandiwul mën ngeen jokkoo ak borom jëf geeg gindi gi di ku yàlla baaxal di taxaw ci jàngoro doomu aadama yi man ngeen ko woo ci numéro yii ci 33 959 38